alhamdulillah ñoom dañu way fecc ba ba ci buntu palais bi kon tu es avec nous monsieur le président no ngi nii taxaw monsieur le président no sunu njabot am ay mag am ay dom fa tabarkalla macha ya yaakaar lu ñuy théâtre lii yeneen yi di am nun am nan ko ba mu doy ministre boo dëgg lii tey tabarkalla macha allah boo ko taxawal ni ko signé suba signé ko signé ko. na signé. monsieur le président signé ko. comme chaque année 4e euh, jeudi du mois de juin euh, dañuy dajale sunu ay ayants droit pour euh, wax leen li nga xam ni que né mom la liggéey ci at mi nga xamné ni que né mom la ñu légui euh, euh assemblée générale bi nak dafa dafa outé kenen assemblée bi parce que dañ ci profiter pour euh, faire euh, des plaidoyers envers le président de la République pour la mise en œuvre effective li nga xam ni que né la ñuy copie privée muy nga xamné ni que né redevance bu ñuy jëlé ci support yi nga xamné ni que dafa mëna enregistrer son wala image te muy dugg ci biir réew mi donc ñu ci daw depuis bi fi loi bi nekkee 2008 di ci daw bi fi tab SODAV nekkee ba 2016 ba tey jii nii euh, auteurs yi rek c'est-à-dire euh, li fi li ñun li ñuy distribuer mi ngi mel ni bi fi dee BSD yaa nekkoon nekkoon te euh, vraiment artistes interprétés et ak producteurs yi euh, ñoom dañu compter aussi si euh, les droits voisins pour mën a jot seen ak sen yelleef également au-delà de ça profiter nañ aussi si occasion pour wax ci droit yi nga xamné ni que ni mom le parti politique yi di amel artistes Ça saa yo xam saa yu ñuy def rek campagne électorale donc mu nekk bëss bu reuy pour ñun bëss mobilisation gis ngeen tay ji engagement wu artistes yi ñu fi dajé ñëpp pour wax ci copie privée wax ci droit yi artistes yi politiciens yi wax ci également ci nga xam ni que ni mooy droit yi diffuseur yi aussi di amel artiste yi ñu ñu àndandoo def ben bloc euh, bu pour vraiment euh, taxaw tem pour que yooyu nonu suñu ak ak suñu ay yelleef ñu ñu delloo ko. boo loi wu 2008 bi nga xamné ne ni que ni le la la Sénégal ah, ah, ah, loi sur le droit d'auteur et les droits voisins bi nga xamné ne ni que la euh, Sénégal adopté en 2008 Amna ay dëkk yo xamné ñi ngi ci Afrique ñun ñoo leen jitu fuuf loi ñoom ñu ngi ils sont venus après nous te boo xoolee tey jii ñoom copie privée dañ ko mettre en œuvre ba tey jii ñu ngi ciy am ay milliards perte bi nga xam ni que ne mën nañ ko xayma at bu nekk rek artistes yi mën nañu perdre lu mu néew néew ñaari milliards ñun buñ ko xaymee ak SODAV bi mu fi nekkee léegi ci 2016 fin 2016 ba tey jii ëpp na fikk fukki milliards te tey jii ki nga xam ni que ne daf lay dimbale certes baax na li ñuy jox mais euh, li ñuy dimbale néew na trop ci li nga xam ni que ne mooy droit bi nga xam ni que ne war nañ ko jot ci affaire copie privée loolu nak, ñu bëgg ci taxaw thème, parce que débat bi yàgg na sensibilisation bi yàgg na euh, gis nañu autorité yi gis nañ len plusieurs fois euh, ñi nga xamné ne ni que c'est des hommes influents de la culture gis rencontré nañu président de la république mom tamit ñu wax wax fa deug yalla que japp bi muy japp ci SODAV japp bu ndax subvention bi mais ñun tamit dañu bëgg que suñu ak ak suñu yelleef boobu ñu taxaw ci man je pense que ne ji euh même li nga euh, bok mettre en œuvre la la la la la rémunération pour copie privée copie privée dafa nekk ci bok ci lo xamné da fay taral bilan wu aussi au président de la république donc dafa dafa am solo Nous ñun ñëpp ñu président de la république Nous nga que le premier protecteur des arts et des artistes pour nous taxaw ñu dimbale ñu pour que copie privée mettre en œuvre sinon euh, gestion collective dina dew ci blocage bi nekul fenn parce que parce que aujourd'hui bo xolé commission bobu moy li ma doon wax sank commission bi euh, ñaari commission yi nga xamné ne ne que ne moom mooy toppatoo affaire droit voisin mom moy la commission euh, pour la rémunération équitable et la commission pour la copie privée yoy yep ci bop bi nguur gi moko ko ndax ministère de la culture ñom ñoy yore présidence bi ci commission bi nga xamné ne ne que ne moom mooy commission bi nga xamné ne ne que ne moom moo yor affaire copie privée euh, ñom seen liggéey jeexna parce que ci bir commission bobu il faut il faut dire que dafa am nit yu am solo consommance consommateurs yi l'entier ci représenté commerçants yi dañ leen ci représenté douane mi ministère du commerce mi ministère euh, de la culture mi ci artistes yi ñu ngi donc liggéey bi yep ba arrêté nañu ben barème barème bob légui li nga xamné ni que ne mom mo def blocage bi mom moy que ne il faut un arrêté bo xamné ne ni que ne dafay ministère de de entre le ministère de des finances ak le ministère de la culture pour mën autoriser la douane pour que mu prélever la redevance euh, sur les supports yi nga xam ne dafay dugg ci mim rew donc depuis des années on court derrière ça on ne comprend pas ce blocage là et que euh, vraiment ñun jaxlé nañ ci lolu quoi lolu tay lolu tax tay jii tamit tamit ñu taxaw temm pour que aussi affaire bi le plus rapidement possible ñu mettre ko en œuvre parce que on est asphyxié député problème bi loolu la moo président bi signé ko boo signé ngoone joxe ko moo président bi signé ko président ko j'espère bien que tu